site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko coalition Diomaye président du commune de Fatick moo ñëw di addu euh, ak euh, askan bi di sant yàlla ji jëlu cent bi euh, di sante militants yi dembu ak toute la population de de Fatick ci mobilisation exceptionnelle bi ñu def démb di accueillir suñu président Diomaye président démb Fatick vibré na ak bracelet de la victoire ñu ngi sant wa Fatick yëpp ak ñëpp ñi ñëwoon ak sympathisants yi euh, bii délégation bi ñëw nag am na ay waa bennoo am na ay xale yu ñu ay ay ay xale yu ñu yu ñu yu ñu yu ñu gemb ñu a saboter délégation bi bi ñuy dem bi ñuy bi ñuy bi ñuy yegg si alors sécurité bi ñu réagir réagir euh, dégager leen. man sax après laa ko yëg bi ñu paree aussi meeting bi euh, caravane bi ba déglu discours euh, euh, suñu suñu leader di Diomaye ak ñi mu àndal vraiment di ko gërëm di ko sant aussi ci sagal bi ñu sagal ak teewaayam Fatick ak discours historique bi mu def fii ci Sine je pense que waa Sine dégg nañ ko yaakaar naa ne bu ñu ba ci euh, urne yi en tout cas ak li ñu li ñu gis démb ci mobilisation ak tam li ñu gis ci li ñu dégg ci ci terrain bi ñun ci euh, euh, porte à porte yi ñuy def bu dee loolu moo feeñ ci yi defe naa ne amadu Ba dina am mbetteel waa benn aussi dinañu am mbetteel bi ñuy bi ñuy délégation bi ñibbi tamit. amna ay xalé yu ñu xamb yu ñu ci boru Darel tabit ñu bloqué délégation bi jëm jëm leen a di di di saboter délégation bi sanni xeer ak bloqué ñom aussi mu am riposte la sécurité a a riposté vigoureusement aussi bien à l'arrivée de la délégation n'est-ce pas qu'à la rentrée de la délégation ñaar yëpp bi ñuy ñëw ak bi ñuy dem yëpp euh xalé yi jëm nañu saboté euh, caravane bi di sànni xeer di di di euh, euh di bloquer délégation bi qui euh, bi sécurité bi réagir bi ñu njibbi aussi sécurité bi réagir alors ci lolu ñun biñ leen gungee ba délégation bi dem ñun biñ ñëwee ba fii ci buntu kër gi gis nañ ne am na ay xale ñëw di sànni xeer on n'avait pas compris di sànni ba paré daw jéem nañ leen sax poursuivre mënuñ leen gis après ñu dugal suñu oto ci biir kër gi euh, ñëpp ñibbi biñ paree ñu euh, militants yi ñibbi ñu tëdd ba ay deux heures trois heures du matin trois heures du matin ci la ñu yee pour wax ñu ne dañu euh, lakk bus bi ci la gardien bi ñëw yee si ñu pour wax ne dañ lakk bisu école Adja Dior bi nga xam ne bi man bokk naa ci

ñoo bloqué suñu cortège euh mu am ay ay ay ay réaction bon mënuma wax né ki la mënuma wax né du ki dans tous les cas la police dina def enquête am waaw mais daal ils sont présumés parce que gis nañ né bloqué nañ suñu suñu suñu suñu suñu suñu cortège deux fois gars yi réagir nañ réaction yi nak dégg naa ne am na ñu ñu gaañ ñi ci gaañ aussi ñu leen di masawu parce que man vraiment après la ko yëg quoi laa yëg loolu yëpp ñu leen di masawu bu baax a baax parce que ñun ñëpp ay frères lañ ay sœur lañ vraiment c'est c'est déplorable que ay événement am am ñu ci gaañu vraiment ñu ngi koy ñu ngi loolu ñu ngi koy euh, ñu ngi koy euh, regretter euh, lu ci du ci mëna am diko diko di aussi quoi à tout point ak fu mu di jógee bon mais euh voilà mënon na ñak quoi mënon na ñak parce que ñun ñu bloquer sen suñu ay militants ken demul bloquer sen cortège ah. du du donc warul en retour war ci sol yoolu ba pare aussi gis nañ fi ay autorités politiques yu dugg ci koñ bi parce que fatik ben bop la ñëpp ñëpp xam yu dugg ci koñ bi gis nañ ñuy wax ay xalé ñoñu aussi euh xeyna dinañ ko wax police dinañ ci mën ay enquête waaw mais euh, il faut mu am ño xam ni ñi di nga di nga di nga c'est des présumés n'est-ce pas malfrats n'est-ce pas de de de de l'événement Maintenant, il appartient à la police de faire son travail. Mais pareil aussi une porte plainte pour que yoon def def ce mu war a euh, et puis il y a aussi ci Adja Dior sont aussi a nañu fataal aussi classe école nas L'école école euh, y a def na bon sama doom moo nekk déclaré responsable bi euh, man ma fa man investir à 100%. Euh, foofu sax bu doon mais dans tous les cas même l'entreprise beaucoup boo ko xasee ba teg ba pare moomatuloo ko pour ñëpp la waaw pour sénégalais yëpp la ñëpp fay lifin foofu tam jéem nañ fataal benn classe heureusement y a moins de dégâts là-bas mais teewul dinañ porter plainte parce que acte criminel bon gaañ nañ gaañu ba <laughs> aussi bien entendu bu dee am na ñu ñu gaañ euh, effectivement ils n'ont ils n'ont fait que riposter waa dañ bloqué convoi bi dañ bloqué pré gars yi jàll taxaw gars yi jàll ak sànni xeer dañ bloqué ba gars yi bañ a jàll ak sànni xeer voilà maintenant ñu réagir rapidement énergiquement fallait aussi même chose. C'est un site d'information, information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci wàllu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante ne dafay top lépp lu jëm ci wàllu actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV jokkoo jàll.